Muntaxa Mbàkke nee na bëgg nguur jarul loolu ñu ne déeta waaye ngay yàq seen ak moomeel bi nee bëgg nguur jarul loolu al Muntaxa ci tribune yéene kaay mu ngay sàkku ci askan wi ci boppam rawatina waay politique yi ñu dox si lu andi jàmm dox leen ci laa la wax lu andi jàmm tey jéggale le regard yéen kaay feelu ko ca wet ga nee xalif bi ci boppam yóbbante na ay kàdduwaay politique yi la fatwa de Serigne Mountakha aux hommes politiques nee na dee leen jéggale de dee leen jéggale il faut cultiver le pardon deel jéggale yow mi nga xam ne yàlla na kon yow la jël nguur tekk yow mii nga xam ne it yaa bëgg yootu nguur deel jéggale tey dox si lu andi jàmm al Mountakha nee na réew mi sunu réew la de kon nag sunu wareef la ñu dox si lu andi jàmm le peuple quotidien ne lii rek nag recommandation de Serigne Mountakha waaye politique yi àndale nax daal dox leen si lu jàmm te ngeen xam ne kon réew mi moom leen ko ñun ñoo ko bokk moom kon sunu wareef la ñu ñëpp laa la wax lépp ñëpp la ngir nag ñu dox si saxal jàmm ci réewum Sénégal xalif général Kulumbur ci Vox Populi nee na bàyyi leen xel bu baax nag njàngale maam borom Touba le thème mooy yéene kaay te muy dëgg màggalu Touba gi de cérémonie de clôture ba Serigne Mountakha mu ngay sàkku ci taalibe ñu bàyyi bu baax njàngale maam Bamba Cheikhul Khadim Sud Quotidien lii moo nekkoon na xutba Serigne Mountakha Mbacké woote jàmm nee mënu koo ñaar kon yéen autorités yi yéen classe politique bi dox leen si lu andi jàmm ndax lu dul jàmm-jàmm ka gën foofee la suux soo a génn Serigne Mountakha Mbacké la culture de la paix et du pardon jéggale yow mi yor nguur del jéggale yow mi bëgg nguur xamal ne yow yeewu fi de waru la le soleil yéene kay ne borom mbégte mi da jàppale ne kon jàmm la woote l'appel à la paix de Serigne Mountakha nguurug Sénégal si le soleil yéene kay nee na yi nga xam ne sumb nañu ko si Touba googee dañu koy wéyal de aha kay tànki kanam la am du am tànki ginnaaw bugaan ngay si tribune yéene kay ne yéen a ngi doog a wax nag yéen a ngi doog a wax li andi gàllankoor laalaw ci màggal gi jafe-jafe yi askan wi dund nee na 14 milliards ngeen foog ngi doog wax li tax askan wi dund jafe-jafe yi si diirug turbine yéene kaay si 15 virgule 5 mille milliards yi nga xam ne mooy budget d'investissement yi laaj ma Touba la ma ci laaj ma nguurug Sénégal lu mu dugal sa Touba googee 160 milliards lii rek la gouvernement bi dugal sa Touba ba noppi di si wàllum koom lu tekki ci réewum Sénégal Touba la muy màggee laa la wax ci ay doomu aadama dama ne mérité na leneen lu dul 1 pour cent du budget laa la wax Bougane Gueye Dany mooy wax l'exclusif di dédicat nee na màggalug Touba gii bi la ngeen millions d'habitants mérite plus que treize milliards par an Bougane Gueye Dany làbbaliwaat ci l'évidence yéene kaay mu ngay sàkku ci président Macky Sall de mu bàyyi xel bu baax kàddu yi Cheikhul Khadim aha kay njàngalem Cheikhul Khadim maanaam jéggale ga man jëf te jëfoo nga jéggale Bougane Gueye Dany nee na président Macky Sall bàyyil xel yooyu le kàddu de yootul critique yéene kaay teg ca l'info njàmbaat sa l'indépendant Bougane Gueye Dany neexul ba neex nag waaye nguurug Sénégal war na xoolaat ak doxalinam fii ci Touba laa la wax koppar mu fi dugal budget Sénégal na mu toll mu coppati sa un pour cent laa la wax dugal ko ci Touba ba noppi di ko bàkkoo ngi doog a wax jafe-jafe yi nga xam ne taalibe yi dund nañu ko ci Touba lan moo ko waral dafa mel ni président Macky Sall am na sa ndam na sa ndam ndax ministre de def na bilangam wax na la ñu liggéey sa Touba bugaan gay dani ci l'info yéene kaay daal di koy tontu nee na ko demal nguuru Sénégal muy bàkkoo un pour cent si lu jógee seize mille milliards budget d'investissement mu dugal ko Touba li lay bàkkoo yéenay gàcc la laa la wax nañu bàyyi xel doxalinu murit yi ci wàllum koppar wan nañu leen yoon bi de xanaa kay ñëw tënk xam lu tënk xam lu googee tribune président Macky Sall moom la def ba fii nag waxul kan mooy candidat bi Benno Bokk Yaakaar kenn xamul waaye tànnee fam dafa mel ni contesté nañ ko te waxagu ko l'observateur di ko dëggal nee na campagne bi si boppam door ci ñi nga xam ne ñoo bëgg nekk candidat ci biir Benno Bokk Yaakaar ku si mel ni Abdoulaye Daouda Diallo Mame Boye Diao Ali Ngouille mooy wax de nee na lii nag dafa mel ni façon bii la ñu jëlle ngir mettre la pression président Macky Sall ngir mu fësal ak tànneefam tànneef googee l'enquête yéene kaay ne Amadou Ba ndax dana resté Amadou Ba ndax dana des di doon ilimaanu joriñ yi ndax mooy xeeñ de remaniement ministériel tëggaat gouvernement bi mooy xeeñ Amadou Ba ndax day des l'enquête yéene kaay ne damay laaj dong rek le point actu ne man li may laaj moom di Farba Ngom ndax président Macky bu tànnee moom dana topp te ne moom Farba Ngom dafa assumer ak àndaama Amadou Ba le point ak tu kon lii rek moo tax may laaj nag bu fekkee président Macky Sall tànn na keneen ku dul Amadou Ba ndax dana sa topp laa la wax damay laaj rek nag sur soo ne kon desal si candidature yooyee ndax nag waa Pastef fu mu nekk nii wala Pastef ba woon ña waxtaan de dugg nañu seen ruq mën a kan ngir xool nees mën a def ba am beneen candidat bu Sonko débat bi engagé nañu ko waaye ci suuf en interne def nañu ko potum biir ñu ngi koy waxtaane de boo leen bëggee dégg-dëgg ani kan mooy laaj rek nag suuf su aane ñu ngi koy waxtaane seen ruqu mën a kan lii jërë laaj kay bokk suba li